finance ak ministre bi ñu dénk wàllum économie ngir nag ñu gën a la maanaam relation bi nga xam ne moo dox diggante secteur privé national bi ak état bu Sénégal yéen kaay gi de la solo xëy di xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum stratégie de développement di président privé bi ndax mi di président Macky Sall nee na ci réew mi kenn mënu koo tudd te du doon secteur privé bi yéen kaay gi de enquête nee na njiitu mi di président Macky moo jëm ci wàllum relance économique bi yéen kaay gi de xëy di xibaar naan ñu mi di président Macky ak matukaay yi nga xam ne jël na ko ngir nag soxali secteur privé bi journal ko gisee bu Sénégal ngir nag lëngoo bi nga xam ne moo dox diggante état ak secteur privé bi ñu daal di koy doxala yéen kaay gi di réew mi quotidien bàyyi mbir moomee wax ci Ousmane Sonko ak Aminata Touré mi nga xam ne moom la wax ne ñoom ñaar dañoo gisewoon ca diwaanu loole ñi nga xam ne ñooy waa Pastef ñoom wedd nañu ko ba tëdd sa naaj wa nee nañu Ousmane Sonko musuta gisee ak Aminata Touré maanaam ba sunu yàlla yi jonn tey ji Ousmane Sonko ci àdduna bi maanaam musuta janoo ak Aminata Touré maanaam di ko gis nii musuta ma waa Pastef nee nañu Ousmane Sonko bu dee gis na Aminata Touré maanaam ci télé la ko mës a gisee ci télé la ko mës a gisee wala ci photo yéen gi di bés xëy di ñu xibaar naan ñu société civile bi a conférence de presse ngir nag daal di lànk ba tëdd sa naaj wa ci lu jëm ci wàllum ñetteelu a dafa am loo xam ne mayu ñu ko woon Abdoulaye Wade waruñu ko may Macky Sall yéene kaay gi di xëy di ñu xibaar ñu lu jëm ci wàllum njëndum arme ministère bi ñu dénk wàllum environnement maanaam jamonoy Abdou Karim Sall dafa amoon benn marché boo xam ne dafa jëmoon ci jënd ay arme maanaam arme de guerre waaye nag li nga xamante ni moo am ba des marché boobee gré à gré la marché gré à boo xamante ni toll na ci 45 milliards yéen kay gi nag nee ñi nga xam ne ñuy waa Forum Civil la nee ma ñoom Birahim ñoom nag ñoo ngi sant procureur a ngir nag mu daal di auto ci mbir mi yéen kay gi de la Tribune xibaar naan ñu njiitu réew mi di président boo mu surveiller Mahmoud Saleh Mahmoud Saleh mer te nag jamono ji nee nañu ma ngi organiser nga xam ne mooy ab rébellion contre ci onze mille milliards ak lu fekk secteur privé bu Sénégal rek état bu Sénégal amel na len lu toll ci trois mille deux cent cinquante milliards yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy du ñu xibaar naan ñu ci réew mi bëri na loo xamante ni jamono ji kenn mënu koo la ndax nag dugub ji di mboq mi di ñebbe ji maanaam sëb si jamono ji seer na ba maara di talee mën a lay gis nga gis nga gis nga Sénégal maanaam li fi yokkoo du rek li jóge bitim réew moo yokk ci réew mi mën na la gis nga li ñuy béyee ci réew mi jamono ji dafa yokk a kaay gi di réew mi a kaay gi di réew Quotidien xëy dañu xibaar yi nga xam ne nag ñi nekk ci société bi ñoo sa nekk ñoom démb janoon nañu ak ma ne la naqarlu nañ bu baax a baax jigéen nga xamante ni ñoo ngi leen di rey ma ne la gis nga ci Sénégal ni ñu reyee jigéen ñi ma ngi mel ni tulleeg male ndax nag diggante 2019 ak 2022 lu toll si ñaar fukk ak benn jigéen ñoo xamante ni rey nañu leen yéen a kaay gi de Le Quotidien nee na ci déndu Afrique ci déndu Afrique maanaam Afrique gi yëpp Sénégal mooy réew mi gën a danger ci ñi nga xam ne ñooy jigéen ñi ndax Sénégal société bu violente bu soxoro soxoro la Sénégal yore yéene kaay gi di source a xëy duñu xibaar naan ñu agence de l'État yi maanaam agence yi nga xamante état bu Sénégal moo ko fi teg agence yoo yee bay boo ñu daal leen di xoolaat ndax mbàmmu laa mën na la caaxaan jalgati luubal ndëngate gi nga xam ne moo am ci agence de l'État yi doy na waar loole nag ñi nga xam ne ñuy waa Cour des comptes ñoom ñoo ko xamle yéene kaay gi di 24 heures xëy xibaar naan ñu napp gu jaarul Afrique di ñàkk ci napp gu jaarul yoon ge bu ñu sukkandikoo ci coalition pour la transparence financière ñoom ñoo ko xamle ndax nag nee nañu bato chinois yi ak bato espagnol yi napp gi nga xamante ni moom la napp ci jaarul yoon ci dindu Afrique mën na la gis nga jéggi na dayo yéen i la Soleil xëy duñu xibaar naan ñu ci monde rural bi nee ci àll bi lu toll ci quatre yoo xam ne dinañu leen inauguré yàggatul dara yéen i sunu làmb xëy wax